mooy départ bi si sept partants yi nga xamante ni ñoom ñoo war a daw euh, li nga xamante ni moom mooy euh, cinquième course de la journée si euh, diggante ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fama Linguère Maguette Zarak ndam li Linguère Tening ak fas bi nga xamante ni moom mooy Laaw ak Maguette Diop mi nga xamante ni moom moo takk numéro cinq bàyyee ko fi nga xamante ni moom mooy écurie Njàmbur bu colonel Maïssa Sele Ndiaye fa nga xamante attention attention <laughs> attention euh, cette fois ta pour une distance de 2200 mètres ba tey Maguette Diop moom moo fa xaw a des mais dóor nañu waaw mu génn ci kanama en deuxième position le numéro 4 ndam li Ndeye Fama ñëw en troisième position quatrième position nekk Linguère Tening cinquième position Linguère Maguette sixième position nekk fas bi nga xamante ni moom mooy Zarak Maguette Diop jël nga nekk li nga xamante ni moom mooy septième position ak Mal Gora Thiam. Maguette Diop euh, mal na. mais taxu koo sori parce que boo xoolee mu ngi commencé mu ngi leen di jot waaye ba tey àgg si ñoom mais law génn na ba tey jox na lu mu bon bon bon bon benn 30 mètres waaye ñi si des ñëpp ñi ngi nekk si benn rungu waaye nga xamante ne nii moo ñëw en deuxième position mooy fas woowu nga xamante ne nii moom mooy euh, Ndeye Fama su ma jiw mu ñëw en deuxième position waaye Linguère Maguette ñëw na en troisième position Zarak tey dafa teel ñëw en quatrième position waaye ñoom ñëpp nag ci si ginnaaw nekk nañ benn fas waaye nag law maam ngañ génn na tourné li nga xamante ne mooy tournaalu génn na tourné tournaalu xombal nekk doomu Tiboté par Fabrice Wade Fabrice Danse Nozon Danse mais ndam li xiri na li nga xamante ni moom mooy ngawar gi euh, fas kenn ñëw ci wetu ki nga xamante ni euh, laaw ñëw toog en deuxième position attention laaw tourné na ak merci de une dix suivi de ndam li en troisième position nekk Linguère Maguette quatrième position Linguère Tening cinquième position Zarak sixième position Ndeye Fama Der septième position nekk Maguette Diop mais laaw romb nañu ak neex takk li nga xamante ni moom mooy le numéro un laay ndoy laaw laaw ba tey moom moo génn ndax génn na ñëw nañ ci nit ñi ñi ngi tourné tournal professeur waaye ki nga xamante ne nii moo nekk en deuxième position mooy fas yi nga xamante ni moom mooy ndam li bu écurie Reyni en troisième position Linguère Maguette moom moo ko nekk waaye ki nga xamante ni moom moom mooy euh, fas yi nga xamante ni mooy Linguère Maguette en troisième position Linguère Tening en quatrième position ñi dawal Zarak déclenché ko bu ñëw Maguette Diop moo nekk en cinquième position waaye ki nga xamante ne nii moom moo génn ba tey moom mooy law bu professeur Sakhir Thiam laal diggu tàllal bi mam na laal la diggu tàllal bi moo tey moom moo génn muy law mais attention ndam li ñëw na li nga xamante ni moom mooy en deuxième position Linguère Maguette troisième position quatrième position nekk Linguère Tening cinquième position Zarak mais na ci kaw fas bi xamante ni moom mooy law ci li nga xamante ni moom mooy tournalu xombol bi mais Linguère Maguette moo nekk troisième position ba tey nag ki nga xamante moo génn moom mooy la mais attention ndam li dal na ci kawam doomu Chaman Force bi dal na ci kawam surtout bu la Force bi génn na ko euh, Yamar Gaye moom moo ko war tour fas yéene tourné li nga xamante ni moom mooy 200 mètres bi ak moom ñoom ñaar ñu jige fi nga xamante ni mooy équipe leen professeur Sakhir Thiam laaw ak ndam li ci 200 mètres bi euh, ndam li nag génn na ko ndam li de plus en plus fort mu ngi nii détaché wu complètement monté par Yamar Gueye Yamar signé li nga xamante ni mooy 24 27e victoire am ci taaw 259 euh, devant face bi nga xamante ni mooy laaw en troisième position fas bi nga xamante ni moom mooy Ndeye Fama Der fas bi nga xamante ni nag moom moo raw tey moom mooy ndam li mu nekk loo xamante ni du surprise parce que moom moo nekkoon favori bu lay épreuve signal li nga xamante ni moom mooy troisième réalisation euh, si saison bi ci temps deux minutes cinquante neuf secondes monté par le meilleur jockey Yamar Gaye mais laaw euh, aussi ñëw jël li nga xamante ni moom mooy deuxième troisième bi nekk fas bi nga xamante ni moom mooy Linguère Maguette donc euh, quatrième bi tamit nekk fas bi nga xamante ni moom mooy Zarak donc équilibré bi daanaka ñoo ñëw premier ba quatrième pourquoi pas sa cinquième parce que entre Linguère Teningue ak euh, euh, Maguette Diop yaa photo